mbokki Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ni ngeen ko xamee rek Leewtoo la ak koor gi tey nag ñu seet si benn mbër boo xoolee fii ñu taxaw Talla Ndiaye ñu ngi Medina rue 25 angle 6 seet si benn champion bu mag di xale di espoir bëree bu yàggul jël bi gën a yaakaar naa si saison bi ren est-ce que du moo ko daan wala bu saison bi jeexee est-ce que ko ko nominé mais nag dañ leen di bàyyi wala da ngeen ñuy topp ñu dugg ci biir ngeen xool ko kooku kan la waaye ba tey rek liñ leen di wax mooy ki ñuy gunge nag ci lii ñuy def. mooy Ecotra gaskatu forage yi tabaxkatu tali yi xëccukatu courant yi ku wedd demal jam ñaajo boo fa demee nga xam ne kenn du waa Ecotra waaye SMPL tamit tey ñëw na bokku si ci sot waaw moom di ngeen ko gis tey ñëw na tamit jàpp ci école ki nga xam ne mooy SMPL ñoom tam wàllu mécanique la ñuy yëngutu mécanique général su la neexee lépp luy mécanique rek demal ci SMPL ñoo ci numéro un fii ci Sénégal te lii ma la wax Ecotra ak SMPL ay doomu Sénégal ko moom Talla Ndiaye looloo neex dañuy dugg ci kër gi xool ki fiy seet taala fii la dugg buntu kaa buntu kër gaa ngi nii maa ngi dugg taala njaay nga topp ma ran tare waxoon naa lañ dugg de ñu am ku ñu fi seet waa mbër kon kii la kon kii laa doon seet mbokk internet yi suivre Leewtoo lépp jàmm ah. tey kii moom moomee ndogale kon wulli est ce que jàmm ah. borom prise bu rëy bi <laughs> mbaa sonno ah sonn ma de laajte naa daal ba prix vingt cinq angle six bientôt bientôt bi bien arrivé bien arrivé bien arrivé kon Talla Ndiaye bien arrivé série yaa faatoo kon nañ dem ko fi nowul baaxul wallaahi ma ne ko Babacar tabarkàlla mi xew ci jamono commencé jamono ci lit yëpp bàyyi nañ la xel duma nga leen dumay metti jiitu nga leen sànni caravage daan leen jël bu kenn dootul miin macha allah tabarkalla law cat yaa xaw ci jamono yaay filing paaj bàkk sëñ Bamba dañuy jéem rek Assane dañuy jéem rek noonu taala li seggum lan la kafe Babacar kii mooy seggum café daan nga segg café Babacar lii li ma fàtt li bëri na waa yow ka Jurbel daan nga segg café Jurbel baax ak bool bool nga an teg ci Babacar dëkku wulli looy defar nii kafe waaw café gi lañ sëgg waaw sëgg ko par ni xam ne di ko jëri quoi xam nga rek tey jii moom doobali du yomb moom café bi am na jar am na naan li ne na yaak moom ca mbapat ma mënu wax moo tax waaye waxal waaw ah, maa moom wax dëgg yàlla su waaye la maa moom ba reefa nag fépp dañuy dem mais daal yaa am gën kon yaay gérer café gi fii rek ngeen ànd ci di jox gaay yi ñuy xewlu gis nga loolu la de liggéey jaamu yàlla xam moom nag Baay Faal la kafe geeg suukar si moo koy jàpp saa su ne ñuy nekk fii di ko coché gaay liggéey jaamu yàlla ki la dafa neex a nekkal te neex a defal quoi barke yonent bi ñun ñu dañu kontaan ci moom parce que kafe gi da ciy jàpp nice barke yonent bi moom des moo koy teg nekk ci barke yonent bi ak mafia bi yëpp sama gars yi ñëpp a ngi ciy jàpp waaw maintenant yëpp ñu ngi si ginnaaw Wouly gaaw waaw waa grave Wouly moom borom baax la quoi ndax dafa yé dafa yéeme te benn dafa si koñ bi wàccee boppam wàccee boppam kon ñëpp waaw maasel maasel boppam ni suuf si borom baax la yàlla nga yàlla may jàmm may ko gudd fa waaw salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum adduna waa Leewtoo nag ñoo fi ñëw seet si sama rak sama xarit ñu naan ko Wouly ñu gën koy xam ci muus muy xale bu am jom am yar am teggin munoon na ne ba mu amee combat trompeur mu beddi ma mais bés boobu la ma gën a jàpp ndax xam na sama digganteeg trompeur muy doon nit ku am jom baax nangoo liggéey te gëm boppam euh, dama ne woon koor la ci yëngal mais moom mii dina ma yëngal mbar gu njuru day mag daan mag ñi la jàngal waaye yaay jàngal ndaw ñi guy gu daar gaangeey ana wulli laay way samba yaane njaay njuufeey buur ba la may ñaan ana maawo bay faalu seex ba doomi garmi garmi lay doon wulli deey jege taxuta bari gàndaku wàcc di xam fa nga jëm garmee neexa soppi wàlli woo waaye gaynde yàgg na ki wuli nee naa la gëlëm ku ko yónni gànnaar danga kaa ñibbiloo sa mbay mbayaan njuufee bur ba ñaan njaay jata njaayoo Sénégal njaay nee naa la ngañ demba kolimata njaay guy danis naay wuli ngañ demba ak baay waali njaay a turé nag ndogu nañu ba pare julli xam nga mbir mi ndogu na julli na ñu ngi nii nag toog raaj fas yéene waxtaan mais man xam nga fa laay njëkkee taalaam ci soxna si lay njëkki quoi vraiment du mën a ñàkk parce que tamit nag xam nga nekko tubaab ba waxee rek góor goo gis daal muy doxal doxal ba baax jàppal na am na jigéen ju baax ju ne ci ginnaawam yaay Fatou maa ngi lay bëggee. maa ngi lay fay. ci loolu yaa ngi am jàmm. sant yàlla bu wér. yaa ngi toog làng ak sa séeréer jox ko ndogu ba pare ñëw approché ko nii làng moom. gis nga loolu bañ ngeen mer rek waaw. wala moom nga bañ mu mer. non moom du mer parce que li wax ci moom yëpp dama koy def waaw. loo ma mën a wax ci moom ci lu gàtt ci tënk. comme comme nan. maanaam xam nga mbër buñ ko waxee nit ku siiw la public bi xam nañ ko àddina xam ko nga nekk soxna di sëy ak moom kooku diggante bi naka la war a mën a taxawee seen diggante. xanaa moom muñ rek comprendre te xam ne nitu nit ñi la. ah di nga ko xamee noonu di nga xam ne kii nitu nit ñi la. waaw mënu ma ci dara maa ñëw dugg ci mbal kañ foog mu muñ. Mhm. kon xale yu jigéen ñi des fois buñ koy tutoyer ak yooyu du la def dara. non non du ma déranger nag franchement. waaw parce que ñoom ñoo bu yegsee fii supporter am yee tax mu yegsi fii mu toll. mais moom daal kon dama yow moom yow la nopp nga nopp ko daal. waaw loolu neex na boo gisee suñu toogaay bi sax nga xam ne lépp dëgg la <laughs> waaw. loolu neex na. Babacar maa lay fay. ci loo ne. waaw sant yàlla bu baax a baax. ma àq waay si koor gi. waaw baal naa la yàlla ñu la boole jégal xam nga di nuyu sa caméraman Talla Ndiaye di nuyu grand bi toog. Modou Mané di nuyu sama capitaine bi toog. SNPL SNPL di leen bëggee. di nuyu gaynde gi maan waaw di ko nuyu bu baax. laa bu baax xam nga. waaw delluwaat Père Bàcc di ko si siyaare bu baax. Uh-huh. nuyu sama soxna waaw di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm may xolu muñ. yàlla bàyyi ñu fi xam nga ba lépp lu ñu yooru daal suñu diggante suñu borom defal nu ko di nuyu ñu ñuy seetaan xam nga di nuyu àdduna di nuyu xam nga di nuyu sama xarit yi ñëw fii tey ci bés bi xam nga ñëpp war na teew sama xarit yi xam nga sama copain yëpp war na teew mais xam nga rek ñii dañuy am jot ñi du jot mais xam nga koor gi dafa xat waaw dinañ jot a teew xam nga di nuyu canaar bu wuli doo bu baax a baax a baax booy bu ma bëgg buy son ci man di yu Sidi sama doomu ndey ma dëkkal fii xam na gaam Sidi ñoo bokk appartement bi sama nit la sama xarit la xam nga di nuyu Ibu sama doomu nday Ibu magu Ngom Ibu sama xarit Ibu day son ci man waaw Ibu lu ma ko wax mu def ko du gàntu waaw di nuyu Iliman Lo sama xarit sama doomu ndey waaw di nuyu Iliman bu baax a baax di nuyu Talla xarit sama doomu nday di nuyu Ngom raku Ibu xam nga di leen siyaar bu baax a baax a baax a baax di nuyu Mbaye Kër Ndiaye Lo sama xarit waaw mbay sama xarit di nuyu Cheikh Anta sama grand sama lépp di nuyu Père Bari Dione xam nga sunu grand sunu père sunu nijaay sunu lépp waaw di nuyu ñëpp ñoo xam te nii dañuy son ci Wouly 2 xam nga di nuyu armée sama booy gis nga dafa ñëw tey ci ndogu li xam nga sama fils xam nga di ko nuyu di ko siyaare waaw di nuyu waa Réfane sama yaay di xamal ne ko maire Ndiakhate ñu ngi la ñaanal jàmm lépp loo ñaan ci koor gi ak yaay waaw di di ñaanal suñu yaay xam nga muy may ko wër bépp yaay lépp lu ñu ñaan ci koor gi sunu borom defal na ko mu nangu di nuyu waa États-Unis di ñu may seetaan di nuyu waa Amérique di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak leen wax ne xam nga ñaan ngeen ma doon ñaanal yëpp dal na ma di leen wax na leen maa ngi fii di pare sama koor leen ñaanal kooru jam waaw pour l'instant nuyu ñëpp nag ma li naa jum waaw. am na solo léegi ci weeru koor la ñu ne yow yaa ngi woor. waaw Babacar Essa man maa ngi woor maa ngi woor maa ngi woor waaw maa ngi woor waaw. tey la ñaata fan ci koor gi. <laughs> tey la juróom wala. waaw waxi juróom. <laughs> tey la cinq kon tey la trois tey la trois tey la trois bu gaaw kat gars yi affaire moom daa teel a saf moom. waaw daa teel a saf de. Ah, daa war a saf mais weeru koor yow tey bu ma la laajee nga dellu ci sa enfance bi ngay gën nekk xale comme ay wóoru gàlle yeeg yu mel noonu daan nga ko def. waaw ah, wóor gàlle def nañ ko kuy xale jàng ci wóoru gale xam nga woor ba midi nga dugg ci kër jàmbur naan ndox ba bëgg a dee ñëw seen kër fam say tuñ. ñëpp jaar nañ ci waaw Wóoru Gale moom vraiment jaar nañ ci moom. mas nga koo def ñu jàpp la. non man nag waa jàpp moom waa jàpp nañ ci moom ba tey moom. moo la jàpp nag nu mu la jàpp. ma rek maa benn booy ñoo demoon ci kër benn sama benn booy mbay fu daay këram lañ doon fooye quoi ñu bëccëg géej gaay ñu dem ci seen ndaay naan wala ñu dem ci wanoo moo foofu ba bawal wanoo gi set mooy saw ñuy sangoo sa la ñu dugg naan ci ba bëgg dee bu ñëwee nag gars yi di fopp suñu tuñ farmeer ba fekk ñu fa yuuxuñu dem boole ñu nag ma dem di jooy vraiment jaar nañ ci moom waaw waaw billaahi dem di jooy waaw jaar nañ ci moom vraiment jaar nañ ci euh, jàngal alxuraan waaw jàng naa alxuraan moom jàng naa wax de sama papa sonn na ci man moom di ko ñaan yàlla mu tëdd ci barke koor gi mu gën a ko fi mu jógee sama papa sonn na ci ñun moom maa kiwal suñu papa sonn ci ñun moom ak suñu grand Baye Fall Ngom Moussa Ngom maa ngi ko ziar bu baax Baye Fall naa na loo téye a waxal ci alxuraan mun naa laa tare ini an sa naaw waaw wa maa daraaka maa laylatul xadri laylatul xadri xayrun min alfi sahri tanazzalul malaa'ikatu waroo fiihaa bismi rabbihim min kulli amrin salaamun hiya hattaa matla'il fajri yee jàng naa de est am na solo waaw woowu sar day soxla nañ ko ci weeru koor wi ñu nekk sax léegi daara ja moom bi nga fa nekkee noo fa nekkoon tribulon nga wala daara ja moom li taxoon njàngam alxuraan man jotuma jaa xam lu bari xeex kon sa pànk nga nekkee yàgg na ci yow non xam ñun temps reefan boo mosaa jàngi boo gën da nga war a xam nga xeexeet balaa ngaa gën balaa ngaa gën xam ngay xam ngay xeexaat boo gënee ci mbaar mi waaw vraiment wallahi loolu tax saa bi chaque suur xeex laa doon programme bu may dikk alxuraan bi maanaam daawul nekk sama bopp cent pour cent wallahi xeex bi laay waajal bu may dem bu may ñëw moom laay waajal parce que force naa ko def gars may boole yaak diw yéen war a xeex suba waaw waaw wallahi des fois nag nga ma xeex xeex bu mitee mitee mi mitee foofu amul atte fi ngi yuuxoo kenn du atte waaw jàng nga école jàng moom jot moom arab laa jàng ak ak alxuraan quoi julit buy woor ci weeru koor nu mu war a taxawee. waaw jullit buy woor ci weeru koor xanaa maandu rek sellal xam nga xam nga di ñaan yàlla yàlla jégale say bakkaar xam nga di ñaan yàlla yàlla defal la xéewal ak mboolem jullit te booy ñaan del del maas nuun gi del def mboolem jullit daal xam nga bañ ko yemale sa bopp yow kese waaw noonu la di jullit war waaw di ñaan ñëpp ñaan way daw luy nelaw di ñaan ne ci prison yi di ñaanal daal ñëpp daal man lu laa xam man man ma ñaan du ñaan loolu sama yaay wax ne booy ñaan bu ñaan sa yow kese del ñaanal ñëpp rek waaw am na solo léegi foofu moom mooy côté koor gi gis naa tamit ñu nekk ci mbedd mi doon defar café tubaab yooyu ñooñu danga leen di faral di jàppale ci loolu wala. waaw loolu xam nga man fii koñ bi dama fa yàgg def naa fi 11 ans fii Rue 25 man yàgg naa fi mais Médina laa defe sama lépp mais koñ bi ma dëkk nii tey Rue 25 fii di nuyu ñi waa kër gi yëpp waa koñ bi di nuyu mère Ndëpp Jaañ sama yaay xam nga di nuyu sama dëkkandoo yi ma dëkkal fii. xam nga ñëpp Souleymane Pël Fuutayin leenayin xam nga ñëpp jum mais ñii man jàmm laa seq ñoom parce que mbër moom ku def ak moom da ngay son xam nga parce que da ngay ba ngay am combat di sangoy garab ci kër gi di teqal kër wax te lay comprendre xam nga te ñun xam nga kër yi bopp ñu ngi fii Medina mais incha allah bientôt nañ xam naa nañ dem suñu yëfi bopp daal bu soobee yàlla waaw nuyu sama grand Aliou Italie parce que xam nga rek bu ñu amee lépp ba lépp egsi fii tey ginnaaw yàlla lépp moom la sama mag sama magu Aliou waaw ma bokkal ndek bàyyi ba daru dara moo ma a entraîner sasuma la dara bu liggéey bu def dara may entraîné di lekk di tëdd muy ma sama lépp ma dinaa ba yàlla tey yàlla defal ma jàmm waaw barke Seera Fall maa ngi koy sant ko ñaanal yàlla defal ko jàmm may ko fanu gudd ba lépp lu mu yootu ci ci ci njabootam ama ak famem ci barke koor gi yàlla defal ko ak aas bi mu dëkkal aas sama xarit sama doom lay aas léegi su ma ñëwee ci làmb ji làmb ban at nga ci dugg exactement waaw làmb ñu ñu dugg 2012 2012 lañ njëkk a bëri suñu premier combat Touba Toul Fallou Faye promoteur waaw caw turam ku daanoon waaw maa ko daanoon keroog sax wala fa yi moo gën a lambo waaw suñu premier combat lañu bëri ñaata combat nga am arène def na 17 combat laa bëri 17 ñaata victoire am na 14 victoire 3 défaites 3 défaites rek nga am waaw te ana kana la daan waaw ñi ma daan sax daw nañ de ñi ma daan yëpp daw nañu ah, tudd leen ñun sax bàyyi ko jar na <laughs> sa defe koo ñaare seetaan naa ko bàyyil mu sedd waay <laughs> Koña moom xam ne mooy loolu. waaw Koña waaw Koña daan na ma waaw. bébé Modou Lo daan na ma. yëpp yëpp booy dañu maa for quoi billaahi boobu mën naa rek. yor fugu xelle. dumbul xam nga. sama combat ma jël ko waaw xam nga naagu. barke rasulaay ñëw jóge États-Unis ñëw naagu sa waay dem lamba jegeen mu kii ma gisuma dara mu daan ma waaw. dumbul moom daa ma gis naa seen ay photo États-Unis yéen ñaar xanaa léegi ay copain ngeen. non ma affaire. muy Balla Gaye muy xam nga mbir mu fa mu nekk. force da ngay xaritoog sa morom bi dafa nekk parce que Amérique ñun bëri wuñu fa sénégalais yi bëri wuñu fa boo fa nekkee boo dee bàyyi faal xam nga amoo xolub ki ñaan ku fa nekk nekk sénégalais da nga koy bëgg comme ni comme comme ni nga def nga di jaale diwaan di di ko jaale waa Amérique yëpp booba léegi xam nga jotuma ko diwaan sama xarit ñoo doon nekk New Respect Club dafa entraîné diwaan waaju baax ku nekk bàyyi Fall bu la gisee da lay def comme boppam maa ngi ko jàlle waa adduna di ko jàlle waa di ko jàlle waa Pikine di ko jàlle waa Amérique yëpp di ko yàlla yàlla na ko yàlla sama moom xale àjjana te yéexenu Cheikh Béthio Thioune bi fi bi ci jóge bu yàggul waaw di jàlle suñu mbokk murit yeeg Tiijaan yeeg Laayeen yeeg Ñaseen Cheikh Béthio xam nga nitu nitu lislaam la woon nit ku baax ku bëggoon Serigne Saliou ñu ngi koy ñaanal yàlla Cheikh Béthio yàlla seral yaxam xam nga fa mu jëm dax fi mu jóge ñu ngi koy ñaanal ñu ngi koy jàlle murit yëpp di ko jàlle suñu kilifa kilifa gi fi nekk di ko jàll ñëpp daal ñu ngi ko jàll daal ko di ko maa ngi ko jàll Sénégal yëpp waaw léegi dañuy continuer défaite yi euh, victoire yi moom bu la ci gën a neex victoire yi bi ci dàq nag wax dina sela instant yi nii pour l'instant nii nii nii man benn neexul ma woon mais maag ambulance moom neex na ma trop lu dafa am lu tax lan moo tax non li tax mooy dama dama takk soxna dem États-Unis ñëw année balance yaa ma dégg ñëw année balance ñëw ñu naan waaji ne xel mi nekkatul ci làmb day dem bana bëreeg jabar jamu takk ak loolu dégg naa ko te ñu ne mbër bu dee da ngaa nar am jom wax naa ko sama émission ba reefan gars yi gëmuñu ma nee leen mbër bu bëggee dara waxoon naa ko dinaa ko waxat mbër bu bëggee dara bu bëggee dara ci làmb day takk soxna te boobu booy takk da nga koo bëgg ah, maanaam daal mbër moom daa war am soxna mbër daal bu bëggee ci làmb dara ah da ngay takk soxna loolu la wax Babacar ah. maa la wax lii de ba pare takk koo nopp takk koo nopp boo ko defee ah. walaay sag lam dina avancé maa ko wax de te dinaa ko ñëpp mbëree ma gën a xam loolu sax ñoom ñi ma siyaar ñoom ma gën a xam loolu booy takal koo nopp ci kaw nga jëm doo arrière mu ca kaw même booy bëri da ngay xalaat ndaw si léeg laa ah, moo xam la ca taal mooy dem ca ban ba yaa ko def de yaa ko ñam yaa yaa ko wax waaw bu di di sama papa taala New York ah. waaw waaw <laughs> kon mbër yi des nañu mbër yi mbër yi amagul soxna Malick Poson. waaw Babacar Malick Poson. day son ci man ak sama tambour masoor bi ñi ma doon tegal Abdou. Malick Poson moom day son ci man. di ñaanal kiiwee sama doom baay nag di ko ñaanal ndam sama xol laa ko tibe yal ndam lu kawe njortam kéwél xam nga rek ñoo bañ deret moom waaw xam nga rek ñoo bañ deret di ko ñaanal di ko ñaanal ndam lu kawe njortam. moom am na jabar. kéwél takk na maa ko wal ba ma takkee lan kéwél takk na de. laa ilaha illallah ba ma takkee ma gis ni ñu may toppatooyee. ca la dawee tag na tag na mbooy su mu nopp sax leer laa lay wax léegi bu ñu ñëwee yàgg ambulance dama ciy dikkaat keroog bi nga bi bi ñëwee ci stade bi ñu gis ambulance gars yi ak nii gars yi ne est-ce que kii physiquement gënu laa pare yow bi nit ñuy wax loolu loo doon xalaat yow Babacar ambulance waaw bu loolu weesoo sama goro yi xam nga itam nit ki itam bu la dalalee këram nuyu sama goro sama papaay jabar xam sama so sama yaayu jabar xam nga mama Xadi nuyu Umi Njaay bi xam te nii tey affaire yi ndox yi jàpp na trop Oumy Ndiaye xam nga jabaru yaafaatu di ko nuyu bu baax Oumy Ndiaye di nuyu Zaki Zaki itam sa xaritu yaafaatu la maa ngi koy nuyu bu baax xam nga ndeysaan dafa baax dala maa bëgg waaw di nuyu sama goro yëpp daal ma limee dinaa juum ñoom Ibou yin gars yëpp mama allo yin ma limee dinaa juum kenn waaw ambulance bi ñu bi parce que nit ñi bi ñu gisee ñu bëri dañu xalaatoon ne ambulance bi wulli mënu ci moom lu bëri wax jooju déggoon ko waaw dégg naa wax ji di ko toogaale fii taala mi sama xarit bi ba may fen moom xam moom moo nekk ci mbed mi di dox te boo nekkee ci mbet mi boo déggee dangay ngay tiit da ngay ñëw bëgg ma wax mais moom parce que man may pare combat képp ku may jég daal naa loo dégg bu ma parce que man nit du ñëw wax ma dara te it bëggumaa dégg yow mi ne ci mbet mi ñu lay wax nag yow da nga maa jege ñu lay wax lu ñu lay wax na nga ko mën a yem ci yow bëgguma koo dégg man maa lay wax loolu mais moom day ñëw tiit bu ko day xulli bëti rek toog di ma xool <laughs> waaw man tam man tam bu ñëwee ma xam li mu li mu bu ñëwee ma xam li mu bëgg wax ma yéey saay ba du ma ko sax nangoo xool bu fekee ma sumee ko solu ma yére daay profité solu yére parce que mu ngi bëgg a xool lan la nan laa mel ak li gars yi wax dëgg la am deg bu dikkee nag toog ma dem solu yére solu yére yéey saay boñ bu ko defee mu ñibbiwaat mais bi nga ñëw ci bi waa ji nga sumeeku parce que ambulance bi mu ñëpp dañ ne kii moom maintenant cong ngeen di am làmb ja jeex waaw mais ambulance bi mu sumekoo man xam maa liggéey na mais kiwél kiwél xam na ma man ëpp ma taxul ko daan ma man caw trois moo ma ko daan tuubaatul mot na ma ñaar Balla Gaye junior moo ko daan bu moo gën a pataat moo gën a pataat ambulance ëpp ko ci kaw te dama koo jàpp xaar ko buñ ne man dama mën a bëre mais dama jël cawtu dama jël waa ji bu mu ne comme li ñu bëggoon def Balla Gaye de bëgg koo fay Balla Gaye de fi leen toog naan du yàqu naak yàqu nit du nekk ndaanaan bu pare nekk cuuni mënul ne ndaanaan lay doon ba muy xëy dee wallahi waaw di nuyu sama séeri Sofi Sofi John séeri Tafatine xaaral sama séeri tafa séeri tafatin sof sofi maa koy nuyu bu baax nuyu sama grand tafa ne ko nag waaw naa ñoo ndogu si incha allah maa soxna si bu soobee yàlla tafa sama grand sama xarit waaw waaw waa ji mu ñu mu ñëw sumaku kéwél na ma sa waay kii barke Serigne Touba atanu la te man gëm li kéwél wax dëgg la waa ji moo ma gën a miskile te xam nga nit miskil ak doole bokkul xam nga kuy contact ak bébé Diène di contact ak kéwél di contact ak Bour Sine booy munul ne te dama leen di tëri sal bala gay xam ne dama koy jàpp xaar ba daan ambulance yàlla xam ne ak koor gi barke Seydina Mohamed dama dama koo liggéey barke Seydina Mohamed am na ñu ne da nga koo tandu sax école bi laa doon entraîné de sama coach fal ngom ba ba may fen billaay walaay damaa jàpp sal bala gay jàpp ci ngemam bi ma ko xaaree bi ma ko daanee fal ngom dafa yuuxu ni ma lii kër boo ci daanee waaji esat toj esat bi barke Seydina moo tax nit buy wax lamañ dafa garaaw quoi maanaam daal looy waxati na la leer na la ko waa coach est-ce que mën na daane waa ji mu ma lii de bés boo ko defee stade toj fa ma ne dinaa ko def kon bi a xar rek fi a xar ba a ah? ko bés bu bés bu combat bi yàggee man xamoon naa naa ko def bés bu combat bi yàggee damay def loolu mënu mënu ko bañ mais indi na doole torop macha allah vraiment waa Thiès nañ ko jàppale barke Serigne Touba champion la képp ku mu jël ci booy yi te liggéey billahi da lay daan man li ma andil mbir mosuma koo andil. arbitre suuf rek nit dox sama kaw mosul am man bi abi ne pip mu dox sama kaw daane waaw kii lu mu def lii waaw kii lu mu bëgg tey fan ma ne xaaral nag kii boo café dina dina la ko def de ma ne xaaral kii ma ne ko jiko lan ma andi ko jaaga ji kay ma ne ko pangalang mi du mën a ñàkk waaw léegi nga daan ko jël bëre ni ñëpp di ko coow wulli li wulli wulli wulli waa mais Babacar daan naa ko mais barki Seera Fall bi ma daanee itam météo ma damaa neex ki ma sawaay foo dencoon lii ma lii yow xam nga ne ma mu bopp bi lii chaque jour mu ngi fi bàyyi caaxaan nga fa na wax ji bëri na mosuma am combat bu bëri ni coow dëgg la moo tax itam xam nga nit bu nit bu la yàlla tegee benn nattu nga ñëw année balance ñu naan mbër nga ak doo mbër tooga say tànk gëm yàlla suñu borom quoi xam ne yàllaay dogal xam nga nit mënul nekk ndaanaan par nit cuun mënul nekk yàlla bu la joxee combat xam nga nga def sa fula sa fayda man la mënoon am xamoon naa naa defante waa ji xaw ma ku doon daan mais defante mën na ñàkk moom te day métti man xamoon naa loolu parce que daa jël décision daan ma te man pare ma pour daanu vraiment man pare ma pour daanu léegi daan ko foo jëm waaw instant maa ngi sama grand yi di anta yin xam fu ñu ma jëmloo ak jon ñoom ñaar ñi daal fu ñu ma awloo ak sama gars yi ma aw fa man instant yi damaa kere télé naan du ma bëri du mais essai maa ngi déglu sama gars yi ku ñu ma jox ci gars yi ku ma lam booleel ci kàttanu yàlla dinaa bëre ak moom bu sa xel ci ku mu dem Babacar essai sama xel moom dem na ci ci ponkal yi dama grand yi may saas ponkal da ngay tudd seen i xam nga man moom waa grand yi ma war a may saas moom dinaa la tudd moom parce vraiment vraiment Moussa Ndoye dama war a may saas sama grand la lii woowu Moussa Ndoye dama war a may sens Moussa Ndoye sama grand sama lépp la dama war a may sens dama may sens ama neex dama war a may sens ñu noonu états xam naa ko bu baax li muy entraînement méttiwul ma ko mën fuuf ama neex li muy moom ah, am na fu mu jaral sa xarit booy bawal de sama xarit booy bawal dafa jumoon ama neex na ma jël bu ko neexee sax bu bu nangoo ñu simen contrat mu jël ma bu ñu lu ma liggéey fekk ko moom xam lu bu ñu demee états lu ma liggéey fekk ko bu neexee la loolu nga wax ama neex mu ngi lay dégg moom day mën naa tontu léegi à part ama neex ak Moussa Ndoye waaw ama neex Moussa Ndoye moo daan ta ndaamaas Thiès si moo ko andi woon tàq ci rip na ma jël ngir yàlla moom ma moom mu ngi andi place te ñu ne xele lañu suñuy moom suñuy grand nañu ko mayoon chance mu daan ta ay Ousaye nañu ko mayoon chance ay Ousmane Diobine mu daan leen ay Baye ma na nañu jël mu daan ta mënuñoo bañ ci làmb ñun raw la ñun boobu moom mënu maa raw man bool damaa yaakaar man ginnaaw tafaatin bool fi muy ñu ama yaakaar bool laa bokk xam nga ci yaakaar boobu laa bokk kon dama dama may chance yu bëre ñu ne xel nañ yii bëri la ma lañ yaakaar moo ñu bay Sénégal fii moo nante dama may chance yu bëre te sax maanaam dama dama war a jël far fos parce que Thiès far fos dama war a jël waaw mbaaru da ngay moo daan te far fos dama war a jël parce sama Thiès sama Thiès laa fa teg wallahi daan naa fa ñaari nit ñoo xam te ni yëpp ay ay ay lañu saafi jee and nañ ko reefan ma dóor ko mu ko mu daanu ambulance mu andi ko gal ci bakkan bi ma xar ko sani fale kon nag bu dee li muy woote dëgg la ci moom nan ma jël moom combat am day métti Baye Fall day balaa dóoru day dóore de nag Baye Fall fuufi ngole anta ndaamal yu doy waar la en tout daal na ma jël na ma jël ñu bëre moo dante dama war a jël ñu bëre léegi nga ne loo wax ci Ecotra loo bëgg ñu tabaxal la waaw Ecotra damaa a am kër man damaa bëri ñëpp na ma da nga am sens xam nga fu ma jaar ci Sénégal fi mu nii mootuma aw fen sa kër gi sa kër gi Ocotra nag dal ma war a euh, tabaxal te yàllaa ma suturaaloon ma bëre combat bu rëy am ci ndam lu rëy mu neexoon trop ma doon yaakaar kër far waa ji ba léegi jox ko ma sama kër gi. dañ laa diggoon kër bi ngay bëre wala. Omar Ba Baas xam nga grand politicien de Guédiawaye mën a bi ma jël drapeau mu neex trop rëy trop. maam ci ndam lu rëy mu dig ma lool waaye nag daa dem ba ci biir bokk ko yàq nag Omar Baas sama terrain bi ma dig nag dama laa ñaan ci ngir yàlla ci barke koor gi jox sama terrain bi Omar Baas parce que kat kilifa laa te waa Ecotra dañu maa tabaxal te ji ko daan jël bii nga dig ko terrain ci kanamu aduna yëpp da war a jox fu ma jaar essai ñu ma sa terrain sa terrain. waaw Omar Baas maa ngi lay ñaan nga jox ma sama terrain Sa Thiès wala Omar Baas mu jox ma sama terrain bi kenn yaa ko andi woon waaw ma daan jël bu réew mi drapeau bi ni ma wuli maa di teel dinaa ko def ma la grand amaguma terrain damaa bëgg a fu ma dugal sama njaboot nga ma terrain bi dinaa la ko jox kon nag grand maa ñaan bu ma la wootee nga jël ma jox ma jox bi. leen dégg na la dina moom xam naa dina jox terrain. mais des na SMPL tamit andi mu ngi na leen mécanique la ñuy def général am nga oto. waaw am naa oto am naa vraiment am naa waa SMPL. SMPL kay yow kon jéem sama oto bi fu mu ne tee ngoro ci rek man leen ko fa yéen. voilà andi leen SMPL kay dugal taxaw. ana ni ko SMPL indi. lii rafet na bul soob may demee entraînement. ah ñii kat ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom xam nga. képp ku sa oto nag nga rëcc xoolal ma pañ bi mu riis rek. jéeg xoolal li lii riis na de vraiment vraiment. xuli sa bët ñu yokk ba yëg ko rek. <laughs> MPL bi ci. déggal <laughs> bég ci ñoom rek yàlla nañu yokk ba yëg ko. ndax ñu mun di jàppale yeneen doomu aadama yi. comme moom seen dund daal am na njëriñ. waaw. Nicolas mii moo leen fi teewal <laughs> Nicolas mooy yaa fi teewal waa SMPL loo ñu mën a wax ci SMPL lu ngeen di yëngutu pour mu gën a leer daal. bon man maa fi nekk euh, Nicolas ma ànd ak suma collègue euh, Massamba Diop ñun SMPL ñoo ngi yëngu ci lépp lu nekk affaire mécanique genre gestion matériel BTP képp kuy yëngatu ci affaire taliyeeg defar taliyeeg tabax dañuy topp dañuy euh, on s'occupe aussi ci affaire centrale enrobée béton képp particulier aussi ku am ay camion yu camion yu paan oto yu ndaw nouvelle génération ak ku remorquage comme ku am oto ay sa camion bu des ci lii bi am nañ capacité yëkkati ba vingt tonnes ba quarante tonnes léegi ñun dañuy lëkkaloo ak Leewtoo pour comme que ñun ay société bi c'est pratiquement jeune ay jeunes ko composé dañuy def activité garage comme boo amee sa auto particulier nga am problème nga ñëw ñu mën nañ la ko defaral léegi euh, dañuy yëngatu comme que ay jeunes lañu aussi dañuy jàppale pour développement sport looloo tax ñuy lëkkaloo ak Leewtoo production sponsorisé lamb aussi comme que weeru koor lañu nekk ci weeru séddoo moo tax ñuy liin defar pañe yi voilà léegi naa la mm-hmm. est-ce que tey SMPL ak Ecotra pare nañ ngir lëkkaloog promoteurs yi déwén jàppale leen ci làmb ji. bon waaw loolu dinañ ci dinañ ci xalaat comme que ñun sport bi la ñuy jàppale. loolu dañuy neex ñu kon Talla Ndiaye yaa gën a xam. SMPL la Ecotra rafetlu liggéeyu Leewtoo rawatina Leewtoo ak koor gi ba tax ñu ñëw nii indi bulu rafet bi jox ko wulli indi pañe bu rafet bii teg ko ci madame jox ko madame Diouf yaay faatu kon nag Sénégal jëm kanam waaye SMPL kenn du ñoom waaye Ecotra ñooy number one mais mbaa xam nga ne bëgg nañ. non man mii kay kontaan ah? kontaan naa vraiment ñii moom xam nga yàlla yàlla defal jàmm. xam nga lépp lu ñuy yóotu ci sponsor bi suñu borom defal leen ko lépp lu ñu ciy séntu ci xéwal yàlla defal ko vraiment lii neex lañ koor gi daal koor gi daal macha allah neex na neex na pare waaw di sant waaw. dañuy <laughs> doomi garmi garmi lay doon wulli deey jege raay taxuta bari gàndaku wàcc di xam fa jëm garmee neexa soppi wàlli woo waaye gaynde yàgg na ki dooleem wuli nee naa la gëlëm ku ko yónni gànnaar dang